Alors, un grand, grand big up à l'équipe de carapit.com qui est là avec nous, qui sont en train de prendre ce qu'on est en train de faire en studio. Alors, on va mixer en direct, on va mixer en direct. Alors, et ça, on l'offre à tous les fans du Sud sur carapit.com. Big up à vous, surtout à l'homme, ma I never used to be a troublemaker Now I don't even wanna please the fans No autographs, no interviews, no pictures Endless demands Gave him advice that were getting wrong Sometimes in life you feel All in the house getting tonight. All in the house getting tonight. And all my dogs tonight. All in the house getting tonight. Yes, d'accord, Sénégal, soyez à bienvenue sur 7R Radio 90.7 via le big up à tous et à toutes, bienvenue. Alors comme d'hab, toi-même tu sais, c'est des mix hein, à vous couper le souffle. Hein. Les mix non-stop jusqu'à jusqu'à fatiguer, jusqu'à 16h avec le fly boy de Toi-même tu sais, c'est même ça. il a pas mieux à Dakar. sexual. Healing is something. Uh-huh. Dropping some of the hottest cars New Yorkers ever seen. Dropping some of the hottest verses rappers ever heard. The dope pop with the smoke block, singing heard murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all didn't know me to fail? Nah, we all my niggas with the rubber grips. My shot, and if you with me, my mother, and whatnot. I'm from the hard knocks. What's and laid our black, And my block, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Just take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the crisp and get fizzy busy. Flowing fluently like the memory of my jiggy. Baby, you know it's hell when I come through. And like the times of Sean Carter, niggas volume 2.

le fly boy number one de Dakar mom la gars di laaj amna ñu ko xamul c'est que nak euh, boy wax da wax ak man da wax ak ki xam mais da ngay wax ak ki nga bi xamul te nekk mi ngi ko number fly en fait c'est quelqu'un parce que gars à l'époque ils pensaient que les DJ c'était des drogués, les DJ c'était des gens qui ramenaient des des nan et tout. Ben, mais on est des gens on est conscients quoi. Nous avons une révolution de, de DJing à Dakar au Sénégal. Euh, on est positif. On est des djoulites, on est des catholiques, on est des euh, voilà comme le New donne, mais on respecte déjà ce qu'on est quoi. comme un bon musulman, je respecte les cinq piliers de l'islam. Euh, musique de Mokoïdef, juste pour, euh, pour des moments de divertissement mais c'est une passion déjà donc euh, waxtu julli duñu raw dañuy nous tout en sachant que nul n'est parfait mm-hmm. comprendre que mais dañuy et refléter le positif en nous et dañuy jéem aussi euh, boy bi tour. di bëgg c'est pas parce que as le succès ngay def naka sudul mm-hmm. voilà on genre yooyu si logique boobu la dem ba indi positif positivité bi moo indi number one fly juste pour dire à travers les émissions télé et radio yu may def di wax gars écoutez euh, on est des DJ certes mais conscients encore. conscients de notre avenir Moi, lan DJ c'est juste un temps une passion qui va passer et après on sera des pères de famille quoi et on veut que boss bu ñuy dem ci jàkk ji qui tasante ak junior gars yi respecté ñoo quoi c'est très important et comme on dit hein euh, on est des jeunes ay boy lañu mais on va passer à cette étape là pour aller l'autre côté euh, voilà donc des grands responsables quoi. damay ñëwaat ci une question. parce que gars yi ñi ngi laaj nee nañ DJ Sega du tour quoi ñom luñu bëgg xam le vrai nom de de DJ Sega. alors <laughs> waaw waaw lu nekk la ñuy laaj ñu ne di joti Sega du tout man je me nomme Sega Sega Sega Konaté voilà Sega Konaté ñu Sega Konaté moo nekk samay carte moo nekk samay truc en Euh, ba may doog a dugg si DJing euh, à l'époque ba may ñëw di jouer ak boy canadien yi j'avais euh, tuddoon naa sax dama lay jox benn anecdote tuddoon naa sax DJ Greg David waaw parce que dama moo indi affaire bi passé et trucs comme ça parce que temps boy ay 7 days xam nga ay Greg David bu muy teel a fël bon comme je ressemblais un petit peu avec lui dama suis def comme mom di dag face di sol ay genre euh, affaire nice affaire moulant di ci comme grec ma DJ David après ñu dem dem dem un de mes frères m'a dit écoute euh, pour ne pas être pour ne pas est-ce que nom célèbre ce tour nice parce que DJ bi par exemple ñu euh, tour ñu DJ mais

ah hein? Mara Moussou ko euh, on fay ko ñini et puis euh, voilà quoi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp c'est Saraxule quoi <laughs> voilà. yow moom doon ko laaj j'espère que ne comprendre daal nga ah xam nga gars yi ñoom lu ne la laaj quoi léegi nu ñuy def parce que gars yi nee nañ partie animation ba lañ gën a soxla quoi DJ DJ Sega en pleine scène lañ soxla kon luñ def lu dul dem ci partie animation bi ñëwaat.

Yeah, I know, I ain't playing, that's why all through the streets, all I hear, second is how mix, huh? hein, uh, voilà they mix, you're nice, you're cool, you're fun, tu vois, tu Here we go. One, two, three, hit man. On the mix, DJ Sega, the number one fly boy, again. How can I explain it? I'll take it frame by frame it. To have y'all on saying it. toi-même tu Alors big up à mes amis de carapine.com qui sont là dans le studio, qui sont en train de voir les mix en direct. Tout à l'heure, le gars m'a dit, les DJ n'osent pas mixer en direct. Je Toi-même tu sais, nous on le fait. Ok ok ok ok ok allez mesdames messieurs on se dit à tout à l'heure Ñu ko gisandoo giss ngeen animation bi nu mu démé ah giss ngeen DJ Sega bu nekkee studio day melni gayné gaynde ah ko gisandoo ah bon légui dañuy dowaat ñëwaat euh, ci question réponse yi ah. ma ñëwaat ak DJ Sega Sega euh ma lay laaj moy quelle est la différence entre un DJ et un animateur Parce que les gars, gaay un DJ et animateur quoi. Un DJ et un animateur, il y a, y a, une différence quoi, totale. Mm-hmm normalement les radios, hein. je l'avais dit dans une émission je euh, invité un un copain copains, euh, la même question lui. normalement un DJ nous on ne devait pas être en temps plein animé euh, à la radio en temps plein un DJ je veux dire parce qu'un DJ c'est un gars qui joue des sons de façon simultanée simultanée et continue Moi, nous, on fait des cuts des samples que tu xam ne dañuy mixé que tu rek son bi fu muy neexee ñu dagg son alors qu'en radio là je viens pour dire en radio c'est l'animateur qui doit passer la chanson et à la fin parler mm-hmm. donner des dédicaces et tout mais nous on mélange tout bon on mélange tout normalement ñun ay week-end la ñu waroon ñëw ci radio, ay week-end euh, après midi voilà après midi soft yo y et trucs comme ça Voilà, juste ñu am ben temps c'est juste pour des jeunes yo xamné dañuy écouter et tout mais nit buñu ñu déglu deug deug day discothèque. parce que discothèque ça rime avec des mix et tout des fois dañuy dagg son bi et trucs comme ça normalement si on suit bien la logique de la musique. on ne doit pas couper la musique. Parce que on n'a pas le droit même de parler sur euh, une chanson qui passe. Alors que à Dakar, malheureusement, tous les animateurs le font y compris même ñun dañ koy def mais man dama koy def ah, ok hein. euh, voilà des fois nga teg son jëkk-jëkk wax ci kaw mais mun nga teg instrumental parce que déjà bu ñu toppee logique mix logique chanson mun na ma teg benn benn benn benn benn bastaroem wala teg benn benn benn wisi ba pare wax ci kaw wisi animation dañuy bàyyi ba wisi bi jeex ma may dédicace naan dédicace à junior et tout comme ça après jàll ci beneen chanson tu comprends le DJ ay la wara à temps plein mais ñun actuellement on a révolutionné le DJing à Dakar au Sénégal kon amna différence DJ comme tu as dit c'est quelqu'un qui mixe qui est un disque jockey qui joue avec des platines qui fait des cuts des samples et qui est même un beatmaker qui qui des sons à si tu vois euh, des grands DJ comme DJ Khaled ay DJ Cut Killer c'est des grands noms aux États-Unis c'est des gens yo xamné même ils sortent des euh, des compilations tey jii man mun naa dem ba jël ay certains rappeurs def ben compilation génn génne mixtape ce sont un DJ mais un DJ qui sort un mixtape c'est un DJ qui fait des beats c'est c'est dommage tay ngay dégg yene boy ñu dañuy mixtape et puis tu connais même pas qu'est-ce que c'est que la musique mon frère c'est grave hein, c'est grave il faut qu'on fasse très attention quoi parce que suñu jang yeggul fofu il faut que nous dire en Europe parce qu'à Dakar malheureusement on n'a pas une école de DJing voilà c'est des dons qui viennent comme ça nous on est des mixeurs mais on n'est pas des beatmakers yeah on est des mixeurs mais on n'est pas encore sur cette étape là parce que étape où non il faut nga pour fa euh, ay ils font des compilations partout partout c'est parce qu'ils sont devenus des gens qui ont appris la musique tu comprends man ci logique là je prévois même voyager dans l'Irak, Delaware, delluwaat parce que man euh, ce que j'envisage de faire d'ici 2-3 ans parce que si si songe de laisser l'animation mais devenir un un un docteur truie de Dakar Sénégal un gars qui produise de la musique hip hop quoi surtout parce que non bi am nañ ko ba pare légui nañ wuti drum <laughs> yeah. <laughs> kon y a une différence euh, entre DJing et animateur bu ça. sax. ça la Yang sa émission euh, mon animateur préféré avec DJ Sega le flyboy number one de Dakar toi même tu sais je suis content parce que. gis na animation bi quoi mais nee naa ko gën a kontaan parce que lan dama koy tey da lay indil benn lépp la lay jox tey lépp moo de rire ah. <laughs> man est-ce mun naa lépp man est-ce nag ñu mere la. <laughs> mun naa lépp. <laughs> waaw <laughs> mais sànq dama le le le ne léegi laa ko quoi léegi laa ko gis si si ci télé quoi mais mais ça m'a fait beaucoup rire quoi mais gars mu <laughs> ne dafa am ñett nit quoi ñett ñett ñett nit yu yu dé quoi nekk en affaire du gis satan satan mooy iblis quoi mm-hmm. bon il y avait l'américain il <laughs> y avait le français et il y avait l'africain ben ba pare ñu ne ñom dañu bëgg xool monde bi ni mi doxee quoi parce que depuis euh, quarante ans lañu dé dañu dañu waat pour xool dëkk bi nu mu demee. américain bi ñëw di woote ñëw naan Iblis dama bëgg a woote États-Unis xool nu muy demee ko ñu jox ko euh, kii bi quoi téléphone bi. Mm-hmm. mu woote mu woote États-Unis allo waaw gaa yi ñu ko ne ko c'est c'est moi quoi expliquer. mu ne waaw alors États-Unis mu demee ñu ne ko léegi am nañ mm, président noir mu ne ah bon ñu ne ko waaw Barack Obama am nañu nangam nangam mu ne leen waaw Bill Clinton ana ñu ne mu ngi dund ana George Bush ñu ne ana Saddam Hussein na xam nga <laughs> mu pare mu raccroché mu ne Iblis affaire bi ñaata la Iblis ne ko euh, euh, vingt mille dollars mm-hmm. sa waay compté cash fay dem te daat ci tomboom mm-hmm. tubaab bi ñëw ne day woote Europe euh, France pour xool nu mu demee ñu woo ko ana Sarkozy ñu ne ko non Sarkozy dem na kan moo ñëw mu ne François Hollande moo ñëw mm-hmm. ah, nangam nangam ñu ko eh Jacques Chirac waat nañ ko justice mu ne ah bon ak Sarkozy mu ne eh, expliqué tënk te mbokk yi fu ne raccroché ñu ne ñaata waaye ñu ne ko vingt cinq euros mu fay euro <laughs> mu ñëw nag sunu frère africain bi <laughs> waa ji bëgg woote waa ji lamb poche am gis cent vingt cinq quoi. Mm-hmm. ñëw ba ci Iblis ne ko dama bëgg woote Afrique Iblis ma ko y a pas problème yaa ngi ne mu jëkk-jëkk xool xool boo xool rek mu ne est-ce que mun naa bippé. <laughs> sawaay ne ko sawaay ne ko am africain bëgg la yomb dama bëgg bippé xam nga ñaar ñële woote nañ moom ne dafa bëgg bippé sawaay ne ko bippé amu fi. yaa ngi saa yoo xam ne ngay woote saa woote saa yoo woote saa yoo jël téléphone woote woote tamba ci benn frère africain am quoi ay ko allo mu ne ko mu ne ko waa mais nag na saa yoo ne ko caméra ngi fii di ree ah, tubaab bi yaa ngi ñuy diffuser ah, Batolo Joola daanu na comprendre nga Ablaye Wade dem na Macky Sall ñëw na et cetera et cetera saa yu raccroché mu ne ñaata heure laa def waaye ñu ne ko une heure temps de mu ne ko da ngay fay. saa yi ne ko ma war a facturer dina bëri de comme ñële li nga leen facturer affaire yooyu saa yi ne ko non amul facture parce que en ak ak <laughs> ak ak Afrique ben la 100 francs ngay fay. <laughs> kon du ñun moom nañ pare. <laughs> non. voilà gis ngeen ko ah. DJ Sega moo leen jox boobu ah. Euh, Sega léegi duñ def lu dul tëj dama lay bàyyi nga tagato quoi. <laughs> Yeah. alors d'abord, je moi di remercier déjà carapide.com euh, déjà di di wax vous faites de de belles choses Hein. Euh, nice man C'est dans la cuisine. ma big up euh, vous faites de belles choses et puis c'est comme ça quoi et puis il y a faire affaires. nice Hein? di nuyu aussi sama sama staff ñoom Massar colonel Massar nous ngi di toog di big up ñoom Youssou Mar di big up Opa Outep le manager di big up sama grand Lassana Konaté xam nga sama raki yi ñoom Aïcha ñoom Mami Gaïp, yëpp sama jawar aussi ah sama bébé gaa ah di leen big up. Dylan Bigup big up et puis waaw di big up quoi Sénégal Jim kanam et puis di wax rek non xam et puis on est en train de préparer de belles choses et euh, xam le 24 ak 25 décembre dañuy toj Dakar parce que 24 ñu ngi euh, Madison avec Sega Family yi nous sommes ne parce que xam nga dama am lu rëy man. gars big up man plus de 1000 1000 et quelques personnes nous sommes ne dañu beaucoup Sega Family yor carte membre Sega Family dama am affaire bu c'est ce qui ce qui fait ma force waaw ce qui fait ma force booy bëri loolu la ñu ko parce que dama am nit ñi du xaalis mais j'ai les personnes. wallaahi boy nañu wut nit ñi c'est très important di big up Sega family bu baax ah, parce que c'est des gens yoo xam ne dañuy dégg lu ne mais dañuy jàpp ah, Sega family big up à vous et puis voilà le président moo euh, Dofu aar bi gars yëpp ah ñoom Balla gars yëpp on oublie personne parce que su ma limee damay juum gars yëpp yëpp di leen big up et puis dinaa gars yi nañu seetaan carrapide point com yes.